asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yi ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV tey nag ñu ñëw caaroy géej ñëw seet si ki nga xamante ni champion la naam bari na ay champion mais champion bi ñu ngi koy gis mais c'est très rare ñu gis ko ci làmb mu bëreeg ndaanaan bu nekk daan ay ndaanaan bëree ba ñëpp xam ko bu feccee mu neex bu bëree mu neex muy Issa yi ñu gëj ko gis nag loolu. mu euh, tooyal xaftaanam tey nag ñu ànd ak équipe wasaare lamb Basirou fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy lamb fas yéene waxtaan moom ci li nga xamante ne moom mooy carrière am ak instant bi ci lu mu nekk kon niñ koy waxee ni niñ koy nuyoo rek dès lantam muy coronavirus bi di ñaan yàlla yàlla génnee ko fi waaw wax dëgg yàlla. waaw yal ko fi yàlla génnee daal yal na ko fi yàlla génnee ndax nee naa leen am na activité yu bari yoo xamante ne dafa takk ah, kii nga xamante ne nag mooy Issa kon que porteur de voix la dañ koy bàyyi bu nuyoo après mu sànni ci kàddu kon ni ko gaa yëpp di defee ci coronavirus bi. asalaamaaleykum ginnaaw sant yàlla jërëjëf ñaar salaam salaam. ay ñaan yàlla jàmm yàgg ci àdduna bi di nuyu sama sëriñ Ba Abdoulaye ñu naan yàlla jàmm yàgg ci àdduna bi quoi di ñaan yooyu waa Wassare yàlla dafa leen jàmm. di sama grand yi sama staff ñu ne maam Sira sama gaa yëpp ak sama gaa yi toog nii ñoom Paa Malick Bac Paga. ak waa Thiaré yëpp sant yëpp di leen nuyu di leen siyaara yàlla feebar dugg àdduna bi yàlla na si yàlla jëlee coronavirus bi parce que vraiment lu may def def kaala quoi nuyu sama capitaine bëgge libaas gaa yëpp mais vraiment daal Ibrahima Ndiaye maa ñaan yàlla daal feebar bi fi dugg si àdduna bi yàlla si borom daax mu dem waaw ñu ñaan yàlla jàmm yàgg si àdduna bi yàlla na fi yàlla def jàmm li fi dugg yàlla na ko dañ yàlla na yàlla ka ñaan àdduna bépp nag waaw am na solo Basirou fii ñu toog naka euh, kenn du laaj parce que Issa yi ñëpp xam na alam lébu la mu nekk lébu tey nag ñu toog ci gaal gi jàkkaarloo géej gi brise bi du ñu dugg nice ñu fas yéene waxtaan ak moom Issa yi tey kenn du fi nekk naan kan mooy Issa yi ndax mën nañu wax ñëpp xam nañ la ci sa jàmbar ak ci sa lamb mais tey boo doon résumé sa euh, sa carrière Issa Pouye mooy kan lan nga may wax. booy benn ab booy bu ndaw la rek bu bu dugg ci làmb te dugg ci làmb rek yaa ngi dégg bëri na bëri ma gis ci làmb foofu man daanaka 2002 laa dugg ci arène 2002 waaw man dama daan maare quoi ki laa daan maam Chiré mi sama grand bi toog ma daan di maare di nuyu daal sama grand frère Amara Sène ki ñaan yàlla yàlla ko yàlla def yàlla def maire Thiaray quoi ki ñaan yàlla di nuyu tamit sama waa équipe yi gépp waaw xam ne ñooy sama kere làmb am na lu ñu ci def daal wax dëgg yàlla parce que tey jii mbër moo ci moo dem champion rek ñe na ci ginnaawam mbër yi na ci ginnaawam mm. na fonk bu baax ah. waaw parce que mënoo dem saa ñoom te ñoom ngay àndal di physique ñoom ngay àndal di contact ci man ni sama waa écurie Thiaroye waaw di nuyu tam suñu président écurie Thiaroye Bami Ndiaye Ndour waaw di nuyu tam suñu grand njaxat njaxat Ndiaye kooku sonn si mbëri Thiaroye la waaw Issa sa enfance nag def naa nekk naa Thiaroye nekk Malika nekk waaw sama crée daal def naa fi loolu daal et eh, caare moom fii ñu fi ñu jàng bëri tefes gi. nañ jàng bëri da nga daan ñëw fii waag xam nga waag. ñu affaire salaat dafa vert nii. ci leen daa bëri ah, moo gaaw li tax moo gaaw li tax laalo ci leen daa taxaw di bëri ñu dafay mën mën leen mën a bëree ñu ci leen daa nekk di bëri te noonu la taxaw na ci di bëri waaw moo seen caare yi ñu mën a tax waaw tuuti rek. tuuti rek def waaw. bon xaw fàtte naa ko sax <laughs> yàlla xam na loolu. lan moo tax nga bàyyi. waaw nekkul sama bëgg-bëgg quoi wax dëgg yàlla. Ah. moo tax ma bàyyi quoi man moom jàng moom bëgg jàng français waaw su bëgg-bëgg quoi wax dëgg yàlla. Issa da nga doon bëree. waaw fii xam fii ñun moom man am na sama maam yu bëre mais damay naa ma yow il faut nga bëre fekk am nga maam yu bëre. sama papa tamit noonu mën a bëri yàlla nga yàlla xaajana waaw yàggal sama yaay wér meek wér ak gudd fan di ñaanal famille yëpp di ñaanal waajur ñëpp ñu génn àdduna yàlla yàlla xaa àjjana waaw mais kii moom même daaw li waajur bëri doo juddoo da ngay ngay bëri farfos parce que dëkku làmb la caare dëkku làmb la quoi. Mhm. Issa kon bokkoo ñi ci ñi nga xamante ni seen i parents bu ñu ñëwee bu ñu leen gisee ñuy bëri ñooy làkkatu bokkoo si ñooñu. waaw dund naa loolu kañ loolu xam nga waajur dafa xam yéen mën si doom man mii damay dugg si làmb nii sa waajur mu si ànd. doon wax naan da ngay bëre bàyyi bëre ba génn kër gi lu lay wax moo tax nit ñi wax da lay ji nga gis ne champion foo jaam ne champion làmb kenn ko bëgg a boppam parce que benn mitti na te yombul tar na lool lool lool gars yi lay xam nga rek siw ñu soog a ràññee mais avant ngay jaar ba siw moo yombul quoi nga dund lu mitti soog a soog a siw man làmb doon dund naa si lu mitti lu mitti sax ca maanaam wala doo fekk doo fekk kenn sama grand Alla Gueye Alla Gueye sama entraîneur ak Paa Reber ñooñu li tax ma fonk leen mooy Alla Gueye ba ñu xamante ba ñu xamante si place bi sama entraîneur boobu moom mi ngi bëri si àll bi mbur mu ndaw di entraîné si place bi nii ba ci kii mi di entraînement ma xam ne kii am mbër ma ma dëkk ba bëgguma damay entraîné dama ci ko ma bëreel doo ci place yëpp ku ne dem na am nga foone Madi Diarra ma ne fi ku ne am nga foone moom man di entraîné yaa ngi damay entraîné mu si kenn. léegi ma si waa ji ñëw àll ngeen di di daw di ñëw xam naa loolu daan préparé combat àll bi mu dëkk te dëkkee ma ma waaye booy bi ma lay dëkk ma nekk kan bëre ah, mu ànkañ ñu contact contact yi métti maa moom après ñu toog waxtaan quoi. kooku ginnaaw yàlla maa tax mu bàyyi bëri àll bi sax ñëw xam ne ji na xam ne gis na booy wax ne nii am na gëm-gëm ci loolu xamante quoi dañuy ñëw di ma dëkk nekk nañ bëre ñu bëre bëri yi métti maa moom xam ne kii ko jàppale mu dem mu bàyyi làmb ñëw di ma jàppale muy Alla Gaye ak Paa Rebel ñoo ne ma sama keneen a jëlee nañ ci lu bëree bëree bëree man ni Cheikh Thioro bañ ban yaa dégg maa Diop Ndiouga Mbacke ñooñu daal ak ak Palaaji sama gars yi dara maa daal Ba Ndiaye ñoom na samay làmb ko wax dëgg yàlla. seen mbokk isaan mbapat nu mu demee. naa ci lu na ci lu ne. mbapat moom koo xam ne moom dëgg yàlla dama laa daanu moom dama laa daan dama moom mokk moom mokk sa parce que boobu mën naa ba demee boobu ñi boo xam nit kenn du ko ñime da nga miin. Uh-huh. waaw su ma laa dem ci mbappat nii su ma tiimee mbappat ne ay toll ak ay 30 parce que nit ñi laa ñemee gu ko ñime da nga koy miin. Uh-huh. dama daa bëre sa nit daal ma toog di ree ma wóor ki ma daal maa xamal mais ma taxaw quoi woo ñun nga ma nii am kees si di nit ñi quoi. Uh-huh. yàlla dogal na ma benn bis ma ànd dem fee mbaaw bëri ñu mbapat man kenn ma ànd ma àndee ma kenn ma dem. yàlla dogal ma ñëw daan ñëpp. ñu commencé ñëw quoi nanka nanka mu jigéen damay dem ay Grand Yoff sama benn gars yi mbër Pape Pape mu ñu ko yóbbu Grand Yoff. sa premier jour ma def ma dem ba demi-finale soog a daanu mu jigi ma dem ba kenn ma toog fa daan. billaahi mu jigi ma dem ba paa yi dem ma def fii quoi. dama bëgg dama bëgg dem champion ba kii ay mbërëm séeréer mi waaye. bu ndafa bu ndafa la waaw moo gàtt ni bu ndafa bi leen boppas foofu man gars yi xeex ma quoi te boobu daan maa daan waaj sax gars yi ni ma waajee ma daan te xam nga rek yaa ngi gën a xam ne jëmale séeréer si uh-huh. da ma gerte génn dem mu bu ndafa topp ma billaahi wallaahi su fekkee mu may dégg man ndafa yàlla gàtt may wax topp ma nee booy fër kew ma suri ko ma dama bëgg a ñëw sama équipe ma ne ko non man caare laa sax moom sax moom moo ñëw écurie Diarra écurie moo bañ dina talaa yi ne si man quoi. ok dan naa ma gànnaaw ma fa ca fekk damay daan waaw. Euh, te yaa ngi ñu ne Mbapatandoo Mbapatandoo. ay gurgu sawar foofu ñoo fekk mhm. waaw mais mais mel na Paul Maurice làmb sa daan nga fa. fekk fekk naa ne moom mosuma bëre ñoom quoi foofu. Mhm. parce que dama ne Grand Yoff pour pour jël fa tournoi man man tane doo nekk séeréer doo ko jël. ok séeréer soo sooy trois appuis sooy def trois appuis ñaar daanu nga. ok uh-huh. <laughs> wóor na la. Uh-huh. moom jigi moo sama gars ma sax nee nañu Grand Yoff dañu naan damuñu mbëri olof yi dañu ah, dafa demee da lay lay wax mais man xool ma xeex xam laa xool sama intérêt. bu na bëri gi laa jàng lu may jàng si man. nan na dugg rek. ñu dem sama gars baa baara ba Tamba xam nga baara Tamba champion boobu ak sama gaan Cobra ay champion la nuyu baax baaratu ba Tamba tamit sama gaan ko maa ko formé def ko mbër mm-hmm. loolu la grand moom it ba nu mu tukkee dem France Assane di nuyu famille bu baax. Ah. say mbapat wax nga ko léegi da nga mbapat ba sonn loolu ñëpp xam nañ ko mais fan nga toj si mbapat tey bëri nga ak mbër yoo xamante ni dañ leen a ràññee du trop ci mbapat Issa ñëw kii leen. loolu si mbapat wax nga ma si aadama. ak ay daani boppam ma ne di ko lim dépassé naa fa man. am na ñoo xam te ne non soit xam nga tey waxuñu la nga euh, na leen mbapat. Ah. ma ko ñi ma xam dëgg ñi ma boppam am mbapat. Mm. maa ngi ñoom man xam nañu aar ñu xam na ma parce que mbapat damay amul may deful man ruta naa ay naa di man du ma ko wax parce que dama ko mën a wàññi ma da nga may déglu. waaw xam amoo jotu wàññi naan nangam mais pour ñi nga xam te ñoom ñoo lay suivre sur Wassare Lamb waaw tey gis nañ Issa Pouye instant bi fi mu dinañ fa ñëw mais tey ñoo xam te ne bëri nga ñoom ba fat ñoo xam te ne tey la bëri na ñu ma daaj ma ñu ma ci ma bëri na lool lool lool macha allah macha allah a ràññee dégg man la man mosuma toog di lim a def mosuma toog di lim naa daan naa hmm. may dégg ñoo xam nañu baax xam nañu aar ñu xam na ma CNG kañ ku CNG tëggee làmb tournoi ma ñëw jël kañ xam nga kon kooku. ah ok CNG tëgg nañ làmb tournoi. tournoi ma def ma ma ñëw jël kañ kooku man dama def si làmb ma wax dama dama ko mos a aaree. ok mais man du ma mbër muy toog di lim li ma la naan man fii laay du ma fi jógee. ok mosuma ko def sama dund kon du ma ko def dama la man mbappa du ma fi def. Mm. macha allah ko laay wax. bu mm. nuyu sama rakk yi rëdd rek ama dem. Mm. Thérèse Ndiir ak kii Mbodj Gérard ak Ablaye ak Bas. Pape booy sama booy daal maa ngi nuyu sama booy booy booy ñu ak ak ak Baye Dame. Mm-hmm. ko gars yi maa ngi nuyu baax sama waa kii. Mm-hmm. Reug Reug yéen a bokk écurie. waaw lépp caare benn la ci si ñëw Issa Pouye kom que ne nga wax dëgg yàlla buggoon bëggoon nañoo découvrir lu baree bari ceew ci mbapat mais xam naa ne Issa dag ñoo tëjal porte yi nañ la ko nangul am problème Issa lutte avec frappe nga dugg ci ban année. 2002 2002 laay dugg. nga def ñaata combat. am na am naa 18 victoire am 5 défaites ci làmb. 10 victoire 18 18. 18 victoire waaw am 5 défaites ci làmb. am 5 défaites ci làmb. waaw mooy ma ne victoire laa toogaal nii. làmb bi benn mën a coow dinañ coow dinañ yegg si yow li ma defoon defuñ kenn la. 18 victoire. di nga mën la. 5 défaites mais mais mais Basirou. mais kii palmarès am riche na di nga mën la. làmb ji ba nit ñi siy coow. Hmm. li ma def si làmb dafuñ kenn la sax. c'est que nag xam nga yàq làmb ji mooy comme mu am ndey comme amul ndey. Hmm. il faut nga am ku ne sa wet. Hmm.

35 mille combat 35 mille. 35 mille di nuyu Paa yër yàlla na ko yàlla xaajana. allahumma amiin kooku kenn loo ci man quoi mi Paa bu baax. Mhm. nit ku baax nit ku jullite te am na yërmande. Mhm. kooku yàlla ko si borom xaajana. parce que sama lamb dafa am lu bëri quoi. Mhm. waaw lu bëri bañkat la woon quoi. c'est que manager léegi dafa jafe léegi si manager. manager bañkat. bëreetul léegi. léegi manager léegi doo xool léegi ñëpp promoteur ñoo def ni ok. xawatu intérêt mbër mi intérêt intérêt promoteur la ñuy xool. ok manager waaw loolu gën a xaw a làmb. yow kuy sa manager. non instant manager waxante na manager mu ngi mu ngi ci moom gisu gisagoo ko kon sa licence bi si yow. dëgg man la am na mu ngi ci nit mais dama la man. Ah. sama combat dinaa xool manager bi moo doy. mu ah. dem signal ma. ok manager lii dafa bëri manager kak suur. manager kak dafa bëri léegi si làmb. manager kak suur mooy lan. maanaam gëstu mooy day mën nga am combat ñu signal la pare si mu jeex. ok bàyyi la ak sa bopp daal. waaw parce que ginnaaw yoon li si loolu doy si ñoom li si toog doy. dañ wax li lay wax dara si dëgg dañ wax naan te ak ah, mhm. sa si yow. Mhm, mhm. nga dëgg quoi bul xool intérêt promoteur yi. xoolal intérêt promoteur intérêt mbir mooy yoon sa intérêt mais bu xool intérêt benn côté rek baaxul quoi du yoon. waaw. Issa sa premier combat nga daanu. waaw boobu sa premier combat ba daane boobu fekk na ma jël tournoi yëpp moo tax naa baaxul to mm. mbappa ji um, ubbale naa ko barke Mouhamed uh-huh. mbappa ji ub um naa ko mm. ma ba sama premier combat moo mm-hmm. ñëw ñu ma ki ngay bëre ma may rey maa leen nee ma la ki mee ñoom ñu maa leen man moo tax naa ko baaxul uh-huh. oh, ñu ngi bëri question bi quoi uh-huh. waaye danoo jàpp ma xandal ka wër ko ndomba di ko yenn glissé de trois appuis sa deuxième donc ma dem jëlaat wax seen seen tëgg benn trois ma dem daan neuf personnes jël ko. ñëw sama deuxième combat bu rek ah, Abdou Ngom Ikir Kayor. ma daan ko. waaw. di tegle nag commencé tegle ay victoire rek. dem waaw. nan nga duggee ci classe bi. classe bi waaw avant classe ma si ma classe man soo diggee classe man avant classe bi moom maa ngi fekk million. day leer quoi bon. na bu rek Balla Gaye daan ak Ousa ak Ousa. waaw Ousa mag waaw ma daan kañ vingt millions dëgg ma la waaw. waaw ah. ah. mais sa sa combat sa combat. Euh, instant bi patron ñi ngi may sot quoi bas man moo ma jaaxal euh, sa euh, premier combat boo xam te ne fay nga ci ay million ñaata millions lañ la ci fay lañ la fay. non man yeneen bëri rek. non man moom du ma sama kese. fay na millions mm-hmm. xam nga dëgg ma la. ñu daal am ñu ñeere quoi. ñu daal am ñu ñeere quoi en tout cas daal. Mm-hmm. ba may bëree émission ba fekk bërëguma kalaaf. yow avant nga dugg ci kalaaf nga bëreeg Balla Gaye. waaw. yow sa combat ak Balla Gaye nan lañ ko tëggee yéen ñaar da ngeen a mës a bëre mbapat wala nu mu demee woon yéen ñaar. boobu Balla Gaye xam boobu sama premier combat moom xaw ma ñu bëre dégg naa Balla mi ngi mi ngi def mbapat dara quoi. non Balla moom dafa toj mbapat. waaw waaw ah, c'est vrai si dégg naa ma nangu ko ka mhm. ba boobu maa gën a toj ci mbapat bi fuuf. bokkuñ sax. kon Balla mbapat. fuuf billaahi wallaahi. dugg rek. waaw. benn bi mën naa football ak dimanche nii. di wax nii Aziz Ndiaye woo ma. mu wax ban mbapat fan moo ñëw bëre si. ma ne damay football quoi boo xam rek nan la ñu koy préparé ma ko damay mm-hmm. Mm-hmm. bañ boole ñu. Mm-hmm. sama benn gaayen dem bi rek géejawaay. sa benn xarit. waaw dama bëri moom géejawaay. waaw nu mu tuddoon. Tapha Tine. ok dama bëri moom tolloog bëri moom tolloog 15 minutes kenn mën daan sa morom. te kon ñoo bokk igini. mu ñëw wax ma ko. boo fekk na suñu baal ma baal na suñu yàlla bëri dama fa continuer bëri. mu wax ma ko waaw waaw chaque samedi ma xam ne digg ñu baal gi jëm tournoi sangam. mais rey def mën naa la gaa yi mi ñoo xam man nga kon du baal maa man kenn yow bu naa la te mënu maa ci une minute. Mm-hmm. kon baal maa man quoi gën ndax gën a maa dër une minute te daan ma. Ah. ma ne ko baax na. Mm-hmm. nga nekk sama entraînement. nga mm-hmm. nekk assuré sama entraînement. laa ma ja ma daan ko. noo ko daanee. dana bëre. waa na di ko plaqué glissé. xam boobu suuf si daa bëri am baas. wër ma ndomba. ma mm-hmm. dina wër ma ndomba wëraat ko ndomba daan ko. Mm-hmm. Mm-hmm. nga daan Balla Gaye. waaw am buzz. Issa ñëpp ku taxaw sax ci télé ne jox leen ma Issa ba tey jii mën na mën a melaat ba tey jii. Issa moom da ngaa xew. waaw Issa waaw yàlla xam nga àdduna. yàlla nga ma xew xew continué. Ah, damaa ma ko ji xew xew. xew xew waaw ma ah. mais ñàkk xew ñàkk xew xew aayul. parce que suñu borom moo fi ne abadan li nga def nii yow sax dina toll fan dootoo dafati. Mm. parce que àdduna suñu borom moo fi ne. Mm. kenn yàlla suñu borom. waaw moo tax ma la doomu aadama loo xam ne moo la jik mm. moo la jik quoi. ngay def nii. moo baax quoi doomu mais est-ce que boobu mais Issa nga jugewaat ci mais Issa Pouye non ne Issa Pouye dafa xaw a cuune quoi. non cuune sax xam nga loolu. déglu ma ma àggali sama question. nday Issa Pouye comment ça fait mu daan xale boo xamante ne woon a bëree woon ak moom nga bëree daan Balla Gaye ñëpp xam nañu defet boobu daf koo métti woon. waaw Issa Pouye lan lañ la proposé ci Balla ba nga jëlaat ko. monsieur man combat ma jël naa sama sogo combat mosuma nangu pour bëri ko. ok mosoo woon nangu pour bëri. xam ah, nga lu yàq làmb ji bëri na promoteur ñoo yàq làmb ji bëri na mu def ñu tax ñu siw. Ah. àgg fenn nan sant yàlla santal promoteur yi de. Ah. barke Mohamed. looy wax nii. ma tudd tur du ma tudd tur ñoom kii wéet di nga xam ne Issa bi ñoo ko sot daan ka. daanee Balla Gaye. waaw noonu la Balla daanaata. waaw dëgg ma la dama dëgg ma dama la laa wax tey yow si ma ne maam si la tey jii si nekk na promoteur tey jii di ma tëgg sax du ñu xool benn préparé benn mbër ba mu jekk ah su ma nee taxaw ba mu jekk ñoom dëgg ma daan ko day yomb. kon yow ba ngay jël Balla Gaye boobu. musuma see see ànd comme waaw promoteur su ma dama ko am vraiment Balla musuma nangu pour bëri moom parce xam naa du yoon. parce que ko daan yàggu si ñu bëgg bëri moom pour lan mais gars yi du la bàyyi noonu. ok comme c'est-à-dire sa xel lañ yóbbu woon quoi. dama la du loolu accepté ko xamoo ko. musuma nangu fu bëri musuma d'accord fu bëri mais da lay jàpp jàpp jàpp jàpp topp la topp la du la bàyyi noonu ba ba ba nga nangu. parce que du ngeen ko ay nii si lu si ma xam naa loolu yoon parce que dam wàlla du ko def. man doo xoolee man man waxoon man mbër moom moo sama man ñi ma daan. kenn ma musuma amee revanche mu loolu du ma amee revanche xalaatu ko. laa dëgg ma amee revanche xalaatu ko ndax si ñëw. xalaatuñ ko. ndax du nga xam naa lu bu baax. non dinañ si ñëw mais. danga laa wax ñoom. man nag man man coono coono du ma daan de. waaw moom ba ma ko laajee Issa Pouye moom wax dëgg yàlla moom. waaw bas ñoo àndoon. waaw lu wax. la Lac de Guiers dégg nga li mu wax. lu wax nee na guddi yu ñu toll moom. waaw dëgg yàlla moom. bu ne waxut du bëreeg yow. waaw rek yeneen waxul du bëreeg guddi ñu toll moom wax dëgg la moom. waaw parewul pour bëree. waaw du ngay mal la man ma a dëgg may bëreeg moom maa ko maa la dëgg yaa ko rosi làmb. ma may ma ma koy daan may bëreeg ma fi mm. bëreeg yow. Mm. maa la rosi làmb. mais Issa nga bëreeg Balla Gaye daanu combat boo xam te ne gis nañ la sax nga di wax isaapu yi mi ngi daw di génn saako yi bala di ko xëcc di ko xëcc di ko xëcc ne ko doo génn ba daan ko combat boobu yow mën nga see ñëwaat nan nga bëree combat boobu di nga man la man maa daan combat boobu man dama la combat yi ma daan yëpp nekkuma xam naa ne lii ay mbir la ci biir mais barke ak xuraan karim ñoom mbër yëpp laa bëri Sénégal na mu baax ku yi nekk nii lépp léppam ñëw mënoo kaa daan kaat suñu borom mais dama la laam ñu léegi ku mu am nday ku mu amul nday la moo tax yeneen mbër yi moo tax bër seede yàlla moo tax moo tax mbër yi bëri pour ñu àgg day jafe parce que ñee da leen a gën a ëpp benn côté benn am nañ promoteur wax daanaka seen wet ne seen wet. mais tamit xam nga Bas wax kenn du ko nëbb da nga koy làq-làqal. Ah. ndax yow Issa yi ba nga jógee ci Balla Gaye da nga dugg ci classe. ah Balla Gaye ma jógee Balla Gaye dugg ci bëri naa daan. da ngaa bëri daan. waaw bëri naa ki daan ka kii Balla soo dugg ci kalaaf c' da nga mën la si. làmba ji ba na mën a si ndeyam ba àgg fenn fi la la nga sant promoteur. mu xam ne tey a wax mooy que ni Balla Gaye Aziz Ndiaye lig ni ko lay mot. waaw loolu moo waaw moo am nga koy wax demal la di nga mën la. looloo fi ah. kaas gars yi naan da laa daa nga yow kaas mais demal moo tax. boobu Balla daane kii moom loolu. Mm. gars yi nag Ndiaye da ngaa xeex mën leen loolu yàgg si làmb yàgg wax nga kaas lu yàgg de ñu naan da ngaa ñàkk ñànk moom maa yaa ngi dégg mais ak Modou Lo dégg nañ nga ne daan. ah man la ah, ah. dégg man damal la xam lu wees ay at dafa nekk détail mais damal naa dama def ah, soxna man bëre woon ak Modou Lo fàtte la man ma may revanche xam dégg man la man mm-hmm. man wax joxe su ma topp wax wax sa moo amul wax ma waxee pare dama la man damay junjër wax walaatal ma junjër rek junj waaw xam nga ma xam ma wax loolu parce que nit ñi dafuñu wax ci àgg dafa ko xam mais dama la làmb ji. dama ko dalee kaas. sama ko deuxième combat Balla Gaye laa dal kaas loolu. am na ñoo xam ne ñoo daan xanaa Issa dangaa daanu gëmal yàlla man leen. damay wax xam naa ko bu baax. làmb ji bëri na mbir yoo xam ne nii. fu àgg tey ji yàlla promoteur la tax mais du seen jàmbaar. làmb dafa naa loo xamante nii bëri na bëri ñuy coow tey dafa ñu làmb ji dafa ñu ko si man ama ko kan gars yi am ñeneen ñi si leen tàgg fa mu toll amoo loolu dëgg man la da nga amul ku la waxal. man ma def sama première dama xool affaire du détail da ngay xool ku mm. ma la kon. affaire bi wax xamal la la man ma bëgg xool maa ngi ma tàppee nag nii affaire bi fii nag ma wax ba jëm ne na ñëpp ànd yow. ñii day am ñu leen tàgg am ay ay ay ñi nekk télé di leen tàgg yaa ngi dégg même làmb ji fii bëri na bëri na ñu ngi leen cootal ma dafa ñu làmb ji ñii tegal ay di defet ma bañ a yàlla man di defet fu ma koy jëlee fu ma jëlee man tane kàttu suñu borom di defet naa ko naa ko daanu man ñaan ma ko yàlla si àdduna te doo ne yaa ngi dégg man lamb dafa ñuy def loo xam ne nii kenn mën ko fi jël ku daan ay tafaati nag ay jigéen junior daf fi lu ne ay Balla ku ne nga daan nga si làmb tax di wax yéen mu dama si détail xam nga tax parce loolu dama jàpp waxi noonu la. non Issa. xam nga waaw may màggali làmb. suñu dégg. saako ñu ngi koy dàq. dégg ko daanu. cuune nga kon ñu cuune si làmb ji bëri ku nekk say say guddi guddi ma ne maa ngi si làmb sant naa yàlla baax làmb am naa si sant naa bu baax mais nag am daa yoo xam ne kaa dépassé man. kon c'est-à-dire làmb ji su ma déggee que ni ñooñu noonu donc ñoom loolu ñoom ñoom dana bokk si seen bis ñoom nee na ñun kese mën ñu bëre. Ah. ngay tax affaire bi danga amal la. Ah. làmb ji damal la. da nga tegul si dafa doxul si yoon. boo gisee làmb ji boo gisee làmb ji commencé dee làmb war a lool mm-hmm. rafet mais seen làmb ji mu ngi suux parce que teguñu làmb ji si yoon teguñu làmb ji si yoon làmb da nga koy teg si yoon mais làmb joo xam ne nii ñi ñooy bëri seen biir souvent ñooy bëriwaat seen biir rek kuréel boobu yeneen bëri léegi ñu bàyyi leen. ñu ay ñu sant na yàlla bon yàlla na nga xel moo xam ne nii dañ leen di liggéey si géej gi ak ci kaw gi fépp maa ngi gërëm sama man ni ak père si solo maa ngi leen gërëm bu baax waaw ak ak lay laay Babacar Diop yaa ngi dégg ak ñi may jàppale sama grand yi ñi may ñi may jàppale bu baax ñu ngi liggéey mais am na ci suñu grand tamit parce que àdduna kat yàlla la may xel ngay xalaat làmb ji si kër yi am na mu dem si kër moom la yaakaar kon dootul lekkati. parce que laaj mu tax. làmb ji benn kuréel seen biir rek ñooñu ñooy bëre yàlla yéen bëri léegi fi ñu jël lu yóbbu seen kër. ci kenn moom rek nga yaakaar ne entraîneur rek bàyyi si liggéey yëpp erreur la. parce ah. que mbër da dem di liggéeyaale. maa ah. ngi dépendre si làmb rek waaw. mais à qui la faute li nga wax yëpp faute yi ci promoteur yi la nekk wala mu ngi si mbër yi mu ngi si promoteur mu ngi si manager yi. Mm-hmm. ndax lan. bi war naa xam ne ñii rek amuñu ndey ak baay. ay ay père de famille la ni yéen mbër yi. yaatal mm-hmm. mais làmb ji doo xool ñaata mbër ñaata promoteur yi nekk xool nu bëri léegi. bëri na mais làmb ji am na yoo xam ne yu woo promoteur mais ni promoteur promoteur daanaka ñoom bëri tolloo léegi xool nu bëri léegi te bu njëkk alors amu si woon bu <coughs> njëkk ay juróom promoteur xamoon te ñëpp a doon bëri mais xool léegi ñaar promoteur fi ne ñoom la bëri te làmb ji mu ngi suux xam ni kon ñenn ñi day mu boo promoteur mais ni promoteur dana bëgg bës man dana bëgg siw mais du ñu promoteur. kon am na promoteur yoo xam te ne du ñu ay promoteur. man de jaaxal ma leen promoteur ndax ni ñuy ni ñuy def man mën naa ko yow man nga fee mi substitut dagg billet jox ko jox ko mbëri ñu may may billet bi yow man nga fanaanoo dañuy fanaanoo dagg billet ba sama set <laughs> xëy na may xaaj bi ñoom ne am li may xaaj bi. ma ñaata sa ñaata booy woo naa ma gannaaw jàppal ma ci billet yi man leen jënduma dara dina ñàkk fay da. mbër dafa xam boo xam mais boo xam bëri bëri yoo xam ne xamuñ seen bopp. ok man may ju quatre heures du matin entraîné. promoteur bi nelaw ma yeewu muy moto bu ko topp ci nga di daw non nit da xam sa bopp. xam sa bopp da bokk ci jaamu yàlla. parce que làmb dafa métti. yow làmb ba tey ji lu fa def c'est ëllëg sa njaboot da nga koy gis kon mbir daa war xam mooy kan. làmb yombul. làmb tey yow imagine combat tey comme mu njëkk a métti. entraînement ma nga faa dee. mbir ngeen fay kenn fayu ko ma dégg naa mbëri lay fay daa bëri ay ree ah, ah, ah, mbër. lekk ko ko seeti mbokkam mbër mi man mbokk ma xaw ma moom man sama personne man sama làmb. dama ko yemal sama mbokk rek dinaa dimbali doomu aadama yaa ngi def mi war a def si lu yàlla dëgg digle naa ko def waaw kon làmba xamiti da nga préparé combat fay lay million du jeex da ngay dem la ngay jeex a takk waaw mais lamba ji su bëggee ma dox nan teg mbir mi si yoon mais ak naa la mu dugg du dem daa may naa fexe ñu nekk si làmb jeex man na man man man ab li bu la ma xaw ma waxantu xala billaahi wallaahi taala lu mu la wax lu am la man du ma waxantu dara jaroom si àdduna wax lu amul man ma wax rek dama si am leer nañ parce que ma mii dañu si làmb ji mbër la xam naa li fi ne. man promoteur fay na ma fay na kase sangam ma eh, dama koy yokk ni day yokk ni taana ma fay ma bañ. ma ne ko man doo bëggee bës nga ci bës dama nangu lool. ma ne ko man wala ni man ma fay rek laay wax. fay ma 20 millions wala 15 millions bëgg nañ ne 100 millions nga fay dama nangu lool dëgg. kon loolu promoteurs yi dañ koy def. ànd mbëri ñàkk fay yi koy nangu man dama nangu lool man li nga ma fay. ci laay yem da fay dërëm dama naan dërëm nga fay da fay ma dërëm a nga ma ñaar tiimam loolu soxna si dëgg alu yàlla mu am mbër boo xamante ni ñëpp dañ ko fee bàyyi muy tafaatin waaw tafaatin man tafaatin ragal la xam nga ragal la mooy fii gars yi naan am fit amuñu fit barke fit nekk lu ñuy wax parce que ma déggee xam nga Sénégal li ñuy juwaale ak nit ko bëri wax nañuy juwaale Sénégal doo yoroo da ngaa ragal am fit fit ci làmmañ bu xam-xam di wax ju bëri fit ci biir lay nekk si yow yëngutu di yëngutu dama la taxañ daan naa ga sëñ bi nga dégg fa taxañ laa indi saa fi na ma sama mu nga dégg tax wax wax jeeju wax sa nga la ko wax jeeju jaar yoon taxañ man na ma ka daal ñu ne ñu ne daa am moo tax man yéemal laa ma naa feex su naa eh, dama jël si revanche Issa wax wax wax leneen mbër bu njëkk mbër da nga jël revanche wax leneen man damaa kaa daan ma wàccee fa dem jël Yékini Junior dam dam dam bëri te man maa kaa daan si yoon na fa xal ginnaaw su fekkee eh, su ñëwee daanoo lay bañ. mais kon tey ku la seet si woon jox la a Tapha Tine nga jéego te ñëpp ko fi bàyyi. day daanuwaat barki Mouhamed. foo ko teg. tawañ maa ngi dàq bëre. ok Tapha Tine xeex ba daa ko mag Tapha Tine la Tapha Tine champion la mais tolluñ maanaam qualité sax bokkuñ sa qualité dama aay si moom ku du moom sama aay si moom maa ngi dàq bëre foofu bokku am na nag ñu leen di coow leen ñu leen di yuuxu leen ñoom loolu laa amoon ñu leen di yuuxu loolu ba si la am rek tey moom ñu ngi fi ne ñu nga fa rek Tapha Tine doo mos a dégg dina jël ko dégg si àdduna ne laaj naa ko xas xasu na xas naa ko mu jël avance mais da koy wan naa su noppi. yow pour yow lu waral loolu. ah, ah di ko commande ma ko def jël ma ko daan mais bañ amat maa ngi seen mbër moo tax si naan gars yi dama fit. Mm. ay ree jàpp fit xam nga maa fit. Mhm. Yékini man ak fitam nangu naa ko. Yékini waaw. ndax nga nangu fitam. Yékini mooy jàpp mbër mais mais daan na ñetti yoon mooy raw ñetti yoon. Mhm. kooku man dama kaa naw. Mhm. xam nga tax xool loolu. mais ñetti yoon daal na Yékini xool gaa yi ndox gaa yi. ku ne ñetti mooy fit. loolu fit loolu mooy fit keñ léegi man. imagine tey jii man. Balla Gaye daan naa ko mu ñaaw raxma meek ramas waaw maa ko meek ramas yaa ngi dégg jos maa ko daan meek ramas mu daan la yaa ngi dégg tawaati maa ngi ko daan mais xalaatu bu bëri man mais yow tey Balla Gaye yéen ñaar da ngeen kii oh, oh, da ko daan mu daan waaw waaw est-ce que tey réellement waaw comme que gars yi ne ñoom ñooy bëri seen bii te ñoom ñoon pare nañ pour wàcc pour bëri gars yi sama combat dafa ma ko am Balla Gaye combat dafa dàq ñooñ barke Mohamed laa ma am ko gën a baax yaram mhm. am ko gën a ñëme entraînement mhm. am ko gën a ñëme lu métti gisuma ko contre dama naan nu may def sama yaram ñun ku ma def kaaba te sama loxo ñun du ko du ko teg seen yaram. barke Mouhamed. su ma su ma li may daj si entraînement. gëmoon mbër naka daj. mais tey yàgg Balla Gaye tey boo leen bëree woon nga yaakaar ne changement dina amaat. changement si lan. yéen ñaar kenn ku nekk nee nga 1-1 la. waaw xam nga gars yi dañu naan parce que yéen ñaar ñëpp mais tey est-ce que réellement changement dina am pour combat ba woon. bi nu mu bëree mu bëree changement dina ci am. bi mooy dax parce que dama màgg yëpp xam nga bëri nit mbër. léegi nga dem ci àdduna di gën a xam. léegi gën a dem ci àdduna di gën a xam. xanaa ni léegi gën a màgg sa lépp di màgg. mel ni xam ne nii daal làmb xëy sama yërmande ak sama ñàkk ñàkkal yi maanaam xalaat yenn yi mm. ci la bokk quoi seer mm. yàlla mais àdduna lay gën a màgg salib di màgg mm-hmm. lay gën di gën a xam parce que sama grand Pape Sène dama koy Pape Sène maanaam mm. isa làmb lay gën a dem di gën a xam mais làmb giñ la te mënoo xam lépp mm-hmm. mais man nu ma yàlla bindee sama ko ba Balla Gaye taxawoon lu may wax damay jëf man ko ma xam la ma xamee jëf gars yi naa leen bàyyi ñuy wax man may jëf ki jël sama avance. Mm. su dee doo nalaw. billaahi wallaahi loolu ñu mën a kaa yàlla. mais foo teg ñoom. da ngay weesu mbëri ma mos a bëri nga laaj la la bëri Issa bi yombul quoi. mbëri ma nga dugg foo xam ne fu dugg. Mm. seen mbokk foo xam ne fu dugg. billaahi wallaahi man bëri bëri. non c'est wax baaxul quoi. Mm. yàlla baax na quoi xam nga àdduna. Mm-hmm. sant yàlla quoi dañuy sant yàlla baax. ñu làmbat te roxul nañ si te sedd nañ si quoi macha allah sant nañ yàlla bu baax. sant nañ yàlla parce que làmb ku dem ba tabax nañ yàlla mais te ñaan yàlla feer bi daal yàlla ko suñu borom jëlee mm-hmm. waaw. dafa ay combat yoo xamante ni euh, ay boy yoo xamante ne instant ñoo nekk ci làmb ji wax nga sax combat Balla Gaye ñaar combat bu neex lay doon Modou Lo roi des arènes. ngeen bëree woon. tey ki tëggaatoon. tey Luc Nicolaï bu ñëwaatee jox la avance moom di nga bëre ak moom. moom la am na combat ak Ama Baldé. waaw mais exemple laa la jox quoi. te tey dinaa bëre moom dinaa dinaa am na lu may ba génn di na ku may combat sama gars Cobra mu nga si wis mu ngi combat. moom maa benn boy fii. mais kon avance gu ñu si yéen avance moom la sori mais mu jubóo ma moom. maa boy mbër mais comme man mais dama la man. Mhm. doo duggee pare génn si tax jëloo si expérience doo nit. man combat moo jugee bi ma daan si ñàkk daan jël naa si leçon parce que nga xam lu bëri. moo tax ma ne koy bëree si man. te ban loo xam ma ko bàyyi xel si laam mais léegi. moo bàyyi dara. doo bàyyi dara. dara. lépp côté yëpp. su ma la tegalee ñetti booy yoo xamante ni ne la Issa ndax maa ngi naan la est-ce que pare pour may booy seen chance tey su ma ne la Sa Thiès ne la Gouye ñooñu amuñu fi di jël sama avance. mais ñett ñooñu tey su ma limoon Issa la ci jël. ku ñëw baax mais ñooñu amuñu fi ñooñu duñu sama avance. bu dee guy gi. dama la ñooñu laa kenn du jël sama avance bu seen bokk da nga ko nangu. muy guy gi muy Sa Thiès. sama diggante yàlla. muy muy xam nga xam nga tax mooy. la moo sonal man. boo ñëw ah xam nga moo sonal. amateur ñoom yabaay ma mbëri yabuñu ma. parce que xam mbëri seen biir xamante ne seen biir. ok ndeysaan ñi xamul xamuñu quoi mais ñi mbëri seen biir ñun. Mhm. ku kon xam nga diw doo bëree doo war a bëree moom yaa ngi ci danger wala yaa nekkoo ci danger. ànd ak mbir doo jël sa avance doo ngay dama nalaw. Mm-hmm. kañ am am amuñu danger. mais am na si mbir yoo xamante ni doo jël sa avance. doo doo nalaw. te mm-hmm. yaa ngi sóor doo jàppante doo xeexe ba jàppante foofu la danger ma ne. Mm-hmm. yaa ngi sóoraal lu bëri waaw. mais ñett ñooñu may limal kan moo ci ëpp qualité. comme que yow. ñett ñooñu. waaw comme que yow. ñett ñooñu ñëpp ay champion noonu. ñooñu ñëpp ay champion noonu booy lamb ji am am na coono mais bëriwul coono ñooñu ñëpp ay champion ñett ñooñu ñëpp ay champion noonu dina ñaan yàlla yàlla dafa leen mm. ñëpp ay champion man ma wax daal mooy képp sama morom mbër fu waaye fu mu àgg rek neex na ma man ma sama mbëri àdduna bi ñëpp avancé rawatina sama sama mbokki mbëri tamit ñëpp ay avancé. Mm. waaw man aw ma dara ñaan. Mm. ñaan ma yàlla am ko sax ci àdduna dama ko am ci àdduna. dama la fu mbër àgg rek kontaan naa man. mais Issa ñu bari ñu ne li xaw a sa làmb lu ci xaw a retard tuuti mooy que ni yow doo ñëw làmb ndax dañ daan gis Issa. bàyyi loolu waaye man ko yas combat laa ñëw. bi boobu moom. ah rëg-rëg ñëwoon de. amateur yi ñoo ma yóbbate. bii la dama ñëw làmba xam nga la problème bi. Ah, ñoom nee nañ. kuréel bi laa bokkul ba sama la boobu la ma duggul rek. naamu daa boobu sama duggul xam nga lépp dëgg la mais kuréel bi laa duggul la mooy ñëw. kuréel boobu xam ne si ab ab kuréel seen biir. ma ñoom Balla Gaye Modou la demal la demal la kuréel boobu dafa duggul loo mën a du feeñ fekk naa fekk ma sama yaram yu miti dara wax naa ko sama yu ngi xuur ma wax ci bëri gi sax damaa solo man wax ji parce que wax da ngay wax dara taxul dara changé. Ah. parce que xeeb du wax xamal la jëf. fii que noonu la man jox jox ko. Ah. parce que dafay làmb ji dee làmb ji léegi parce que nag champion yi dëgg gars yi tëgguñu leen man làmb ji sama dugg si rek la ñuy xaar. Mhm. am na sama bëri la ñuy jële bu ne li may daan du bokk na ma daan si man soo jëlee ma daan da nga ko amoon man soo jëlee ma ni damal la laamuñ daal ku ne la nga la mu na ko jox. ku ne la mu ko jox. mais kii laa tëgg ñi lay bàyyee. non du yoon dafa war a yaatu quoi. mooy yoon. ok kii laay tëgg kii laay bàyyi ndax sapp yi wax na ko nee na làmb yi dafa am ku ma am day am. ku ma loolu yàgg naa kaa wax. waaw loolu ragal ma ka. loolu ragal ma kaa wax loolu ma dama koy wax làmb ji. loolu lay doxee làmb ji ku mu am nday ku mu am nday fa am. am ko seen biir loolu mbër mbër yëpp ay kaas moo tax ñaata mën a tukki ñaata mën a tukki yow wax ma. lan nga gisee ni mbër yi tukki noonu gisee ma ñoom dañuy dañuy tukki resté. mais moo waral loolu. mbër ñooy tukki xam nga tax laa ma jox ma doy bëri doo tukki entraînement daa amati sa góor rey sa bopp entraînement gi ta nga xam ne bëgg dama doon combat mhm. ma ñaata laa toog wàcc sama liggéey jël sama xaalis bëri di def ci man dem olympique nuyu sama entraîneur ji mhm. olympique maa ngi koy siyaar bu baax mhm. fay sama xaalis fere ay millions sama yaram di entraîné bay bëgg rek amoo combat toog ay ñaar soo amoo combat ma ne ah xel nag daal jarul ñu xalaat ma ne xaaral ma def pause il faut ma def pause moo tax ma il faut ma wàññi entraînement yi di liggéeyale parce que moo jël si lépp rek ay entraînement rek. day métti. ñaata at nga toog bëri woo année balance. toog naa 4 ans. Oh. te yoon mais nag ñu sant yàlla yàlla bàyyi ñu quoi. Mm-hmm. ñu sant yàlla bu baax ñu ngi fi ma ne Père Khoule Maodo yaa ngi dégg nga siyaar bu baax sama grand frère tam vraiment kenn du moom nga ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dafa jàppale bu baax a baax di nuyu Bagis maa ñëpp Pape Sène su am sama grand frère kii tamit vraiment si man la Siré ku may jàppale Siré mi ku sonn si man la sama gars yi Pape Malick waaw noo gisee léegi làmb ji gars yi ñu bari nañ làmb yàqu na nan ko gisee waa làmb kay yàqu na lan moo ko yàq ak naa féeq moo ko yàq lu kese la comme naa féeq bi ci ban côté bëri na si làmb ji côté yëpp. côté yëpp lan nga tuddee naafeq. xam nga xam nga naafeq wax loo gëmul nit ñëw wax loo xam ne wala lu mu wax ne mënta ne ah nga ànd seeg moom te nit da yemale suñu borom dafa bëgg yemale. nee naa ne sa góor am na ñoo xam ne yàlla def si benn mbir suñu fa nekkee doo fa jëlee lépp yàqu. ba nañu entreprise ñu fay bale nga xeeb leen fekk kooku yàlla rus moo tax mu téye entreprise entreprise doo ko fa jëlee entreprise bi daanu. sama bopp am nañu yàlla rus pour ñu xam lool am na ñoo xamante ni ñu ngi si entreprise gën faa néew salaire di bale bale. dina dàqee entreprise ba daanu. làmba ji xam ñoo xam ne dañ see bokk ñu génn leen nan leen fa dugalaat ñu génn leen nan leen fa dugalaat.